yal na nu teewe xutba ga ak armal ga te bañ a wuute taaye jaag salmal ga ku waay jullee jumaa ci suuf di jaamu yal nañ ko baaxal may nu lañ daa taamu bi jaahi man yashfau yowma alxaqi alayhi taslima mumiiti alxalqi bil aali wal asxaabi far yërëm nu bi xaadimi almuxtaari far gërëm nu cig ngërëmam katax nu xam jumaa ji moo kuy ngi sant yàlla mi nga xam moo waajal jaam ñi ci waxtu yoo xamante ni si ci leen koy mën a jaam mu xertal ñu tamit ci ñu jëf jëf bu baax ngir lan ngir ñu mën koo jigéen sunu boroom moomu nag noo ngi moom mooy yàlla subhaanahu moom mi nga xam ni moom la ñu war a wéetal moom mi nga xam ni kenn waru koo bokkaale ku ko xamul rek moo koy bokkaale waaye ku ko bokkaale ba xeeb ko bu la wanee tuuti ci ay mbindaafam rek di nga xam ni moom rek a jëra wéetal moom borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy buur moo yayoo ak sant moom borom bi subhaanahu wa taala ndaxte nag lu am lu ne sunu borom moo ko dogal لسيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامم ندوام لا نختي مو گن تي لوي اك اسمان موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي جولي تي اك صحابام اك نيونم اك مبولم نيغا خامني نيوكو توبون تي جيتو وون تي گينيلي نيوم نيغا خامني با تخاو جوتي تخاو الله عليه وسلم بجابل أمي تخاونا نتي كان جناوي نتي بس الله عليه وسلم جابل بالإسلام تي إكسي في مو إكسي كن صحابة يو مدخ ك خسدام غوغو ني واخ مقدمات day wax ni lisanul hal day wax ak mom niko rik way bo de tagati yonentibi sallallahu ndaxte boo leen fàttee rek dafa mel ni sa way wi dafa juyu yaa xaadimal muxtaari la tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun muxattawu kon yàlla na yàlla fayal su ko defee mbokk yi ñu leen di dénk ragal yàlla ragal yàlla goo xam ne nag nit ki dafa war a waajal boppam xam ni ëllëg sunu borom subhanahu wa taala mi ngi koy xaare ci ay jëfam kon rik way bu nu sàggan ba ëllëg bu ñu yobale dara tek ko sunu kanam borom ndax ci sunu borom nak lu nu def xam nako kon dafa melni aduna bi ñu nek dana fi wajale ngir lan ëllëg bu ñu dajee sunu borom subhanahu wa taala ñu mëna am lo xamanteni ci danañ ko mëna tek ci kanam yàlla na yàlla defal ñu jaamu yàlla banu fayna lo xamni loo bu ñu taxawé ci sunu kanam borom du nu rus yàlla na yàlla defal. su ko defee ragal yàlla gi nag mooy ñu fexe bay di ko fublu sa su di ko bàyyi xel sa su nekk nga xam funu nek nu nekk sunu borom nga ngi funu nek ñun sunu borom mi ngi kon ragal yàlla googu nag mbokk yi mooy yoon wi nga xam ne bu ñu ca jaaree dinañ am texi aduna wuute nag nag ñi jàpp ni texi àdduna koomum àdduna la bari na ku am alal wala ku yàlla mané gan mu defe ni texe na ndekete texe lu ci am alal yu bari texe dëgg moy fexe ba jaar ci yoon wi nga xam da nga ci wétal yàlla subhanahu wa taala nga xam ni boo ca jaaré rek tabbi bi siratul tabbi biir ajjana néna lool mom moy dëgg-dëgg texe yàlla ñu ko yàlla defal ragal yàlla mbokk yi ba tey mooy yoon wi nga xam moy selal nit ki ba ëllëg yow xiyam mu nekk koo xam xolam day sell lool ñu xam ni yàlla subhanahu wa taala ab jaam su ko yëkkatee teg ko ci fu kawe kawe kawe kawe mooy ni dafa ragal yàlla subhanahu wa taala xolam dana sell lool waaye sunu borom mi dina ko sopp ba ëllëg lu dajeeg lu mu ragal yàlla nañ ko yàlla defal ñu xam ni kon fii ci àdduna rek tukki lañ fi def moo tax woykat bi wax ni bu fekkente ni si danga tukki te yóbbaale woo ab yóbbal ragal yàlla boo dajee ëllëg sunu borom te amoog yóbbal dinga rëcc bu boobaa di nga gis koo xam ni am na yóbbal ndaxte ba ba mu doon góob di liggéey fii ci àdduna am lu mu yóbbaale boo ko gisee di nga ko ñee kon mbokk yi góor góorgóorlu bu baax a baax ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala te di ko bàyyi xel ko ragal bu baax a baax ci lan ci jëfe ndigal yi bàyyi tere yi ndaxte jëfe ndigal yi bàyyi tere yi moo ne may jàmm fii moo ñu may jàmm fu ñu jëm su ko defee mbokk yi jamono bii ñu toll ñu ngi di waajal bis bu mag wala weer wu mag weer woo xam ni dafa bokk ci weer yi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala nee na dama leen a wormaal ñu koy tuddee zil xijja ñu gën koo xam ci wolof weeru tabaski weeru tabaski nag mbokk yi am na ci fukki fan yu njëkk yi borom bi subhaanahu wa mi ngi koy giñ ci suuratul fajri ñu wal fajri wala yaalin ashrin wa shafi wal watri bu ko defee mooy fukki guddi yi nga xam ne moo nekk ci fan yu njëkk yi ci weeru tabaski wow mbokk yi dëgg la wutum tabaski baax na lool am na solo waaye nag weer wi ñu toll mu nga xamante ne si mooy zil xijja ñu koy séntu fukki fan yu njëkk yi jar na kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ndaxte xeyna na ndaw na lool waaye sunu borom dëxëñ na ci lo xam buñu ko xamone deug deug deug dañuy ñaan ci yàlla subhanahu wa taala mënu koy xeccel sa su nekk ndaxte ay waxtom dañoo riche lool mom fukki fan yoy ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena fukki fan yoy mo gën ci at mi fukki fan yo xamni ab dayoom akub kawaayam fa ko sunu borom yëkkati kawena na lool xëy su ñewé ñu bari ñi ngi ci dajale lu ñu jëndem xar wala bu ñu jëndee yére kazalika lu ñu bégalee seenu njaboot ba tax na sax ñoom dañuy fàtte ni gudd yooyu dañ koo war a màggal moo tax léeg-léeg nga gis koo xam ne day fanaante fa muy jëndeem xar léeg-léeg nga gis koo xam ne day fanaante fa muy ñawlo fa muy wute yére ba fàtte sax ni gudd yooyu guddi la yoo xamante ni si dañ koo war a dundal nga xam ni gaa yu xam yàlla dëgg dañ cay rawante ndaxte buñ ca rawantee rek dañuy gën a jege borom bi subhanahu wa taala kon guddi la yoo xam ne boo ci liggéeyee jaamu suñu borom di ko jige ndaxte jige suñu borom nag mbokk yi dara gënu ko neex ndaxte yàlla subhanahu wa taala dañuy wax ni dugg na neex na lool waaye am na lu ko dàq li ko dàq mooy jàkkaarloog suñu borom subhanahu wa te yàlla nag bu la xëccee ba tax la ci wetam jafe naa ne jërëtu ngay ragal dara kon guddi yooyu jàng ci alquranul karim Sëriñ wax ni adim tilaawatal kitaab lizal kitaab walaw salaasatan min al ahdaab wa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra al quraan la yansaahu boo bëggee sunu borom bañ laa fàtte del jàng al quraan rawatina nag ci guddi yooyu muy fukki fan yi nga xam ni moo nekk ci aw tabaski nga xam ni gaa yi nga xam ne dañuy njëkkante dañu koy dàkk gaa yi nga xam ne dañuy njëkkante jege seen borom dañu koy dàkk nga xam ni sopp nañ ci ma kon nga góorgóorlu ci bu baax a baax moo tax ñu ni ki am xel dëgg te am gis-gis moom guddi yooyu du jàll mukk du jàll mukk te dundalu ko du jàll mukk te dundalu ndaxte dañuy wax ni loolu minaxu rabbaaniya la mooy lan dafa mel ni bu ñu doon wax bourse wala lu ñuy maye sunu borom nee na maa ko maye sunu borom nee na maa ko maye ñan laa ko may nag mooy samay jaam dafa mel ni sunu borom da koo def kado jox na ko kon ñu bàyyi ci xel léeg-léeg bañ koo romb bañ koo jéggi te jaamu ci yàlla subhanahu wa taala ngir am ci cër boo xam ne sunu borom moo ñu koy may ndaxte sunu borom bu fekkee nee na mooy almannaan mooy mayaakon bi almannaan mooy mayaakon bi mooy li nga xam ne day maye te li muy maye du jeex mukk ndaxte moom moo ni maa indakum yanfaddu wa maa indallahi baaqi mayaakon boobu nag ñu bëri dañuy jàpp ni wërsëg la xëy na alal la wala taw la buy wàcc waaye nekkatee nee na mayaakoon bi dëggantaan mooy waxtu yi nga xamante ni si dañu koy jagleel nga xam ni doomu aadama dafa nekk koo xam ne li muy def ci bàkkaar day bari lool moo tax ngin jullit ñi ngir yàlla ci boppam bañ ñoo lakk yërëm moo tax muy tàmm bis yooyu ngir nag ñu ciy profité kon ku ci amul xel rek sàggante dalay jàpp ndesaane nag seytaane nag mooy def loolu dugal ko ci sunu xol ba dina ko fàtte lool moo tax nag nu koy fàttali ndaxte nag fàttali ko dafa am njariñ fa zakkir in nafaati zikra wax ni bu fekkente ni si boo fàttalee mu jariñ da ngay fàttali kon mbokk yi fukki fan yooyu nañ ko bàyyi xel nga xam ne ni ngay waajale jëndum tabaski jëndal ko sa tam say say say say say sa njaboot lu nu sol noonu ngay waajale fukki fan yooyu bu ñëwee tamit nga fexe ba jaamu ci yàlla ngir am cëb cër cër ba nag mooy fexe ba jege yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla defal fukki fan yooyu mbokk yi dafa am lu mu lu mu làmboo làmboo na lu ñuy tuddee arafat lambo na lu ñuy tuddee arafat lambo na tamit lu ñuy tuddee bis bi nga xam ne ci la lot sunu xar te yonent sallallahu alayhi wa sallam baaxoo bu arafat jotee ñu woor ko kon ñu jàpp ni kon fukki fan yooyu fonk nga ko suñu borom fonk ba di ca giñ loolu lu rëy la ndaxte suñu borom lu mu giñ rek loolu daa rëy ndaxte boo ne wal fajr maa ngi giñ ci fajar kon njariñ lu fajar a tax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne rakaataal fajri xayrun min ad ay bu ngeen xamoon ñaari rakkay fajar ni mu mel moo gën àdduna ak li ci biiram moo tax fexeel ba yow ah, na fexe ba di ko julli moom ñaari rakkay والشفع والوتر وايه تامل في خيل با مانام شفع اك وتر داكاي جولي رواتنا نك نك ولا يال العصر كي موي فكي فان ييغا خام مو نيك تي غودي مانام غودي ويرو او تابسكي مباكي كادوغي نون بو خام ني يالا مو نكو ماي تي نك سارخ بو بايي كو سبحانه وتعالى مباكي دا ييو جيل نك سارخ بو بايي كو سبحانه وتعالى دا يو جي مو جيل موي فك فان يوي kon su ko defee sunu borom nag ba mu koy wax ci alquran bi am na ci weer yoo xam ni dama ko dëxëñ ci biir fukki weer yeeg ñaar nga xam ni bëgguma sax ngeen cay tooñante muy lan mooy euh, diggiwu tabaski aku tabaski ak rajab ak muharram ñeenti weer yi suñu borom nee na dama leen tànn ngir lan muy weer yu wormaal bëgguma nag ngeen cay tooñ kon nangeen ngeen fexe ba di ci wormaalante loolu nak mbokk yi jar na kon lu ci bàyyi xel diko ko fàttalante lu ci am solo la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam don wax ni ay bisam day bis la yo xamanteni ni si yu am solo mo do yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ni mo gën ci bisi aduna yi mom ayyamul asr yooyu moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam don wax ni jam bi day bokk na ci li nga xamanteni si su ko dundale muy fukki fan yu nek ci weeru تبسك ذي الحجة من سخ موجن جهاد باقي جزء من كي يون يال نمو أمة مقام وهي يون النبي صلى الله عليه وسلم نينا بو مغلة فكي فان يو ننكورا مغلة موجن جهاد في سبيل الله لدول نك لدول غورو كينغا خام يال دكو مي علل موجن علل جوجو ديكو جخ ديكو جخ بام جخ تاك كن لول مودي أكتب لكن لكن لكن لكن day tab tab nag mooy koo xam ni su yoree day joxe su yorewul sax day leb di joxe loolu nag ñi ko man bariwul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ku dul kii rek ah, ki nga xam ne moo màggal fukki fan yooyu ah, moo la moo la gën kon mbokk yi fàttaliku ci bis yu am solo yi dafa baax lool ndaxte yàlla subhaanahu wa taala daf ñu ubbil ay porox ndoll yoo xam ne dinañ ci mën a jaar ngir dugg àjjana ndaxte ma yërmande yàlla dafa yaatu lool yaatu googu mu yaatu nag moo tax mu ngi jagleel jaamu jaamu jaamu euh, bis yu mel nii nga xam ni kon dundal ko dafa am solo kon rikk waaye mbokk bi bul sàggan ba bañ koo màggal ndaxte nag àdduna toll na foo xamante ne si këf nañu ci bëgg alal këf nañu ci bëgg daraja këf nañu ci bëgg njaboot këf nañu ci maanaam xër ci daraja waaye ba fàtte jaamu yàlla subhaanahu wa taala ndaxte kat suñu sëriñ si nga xam ni ñoom lañu topp yaakaar ci ñoom yàlla ñoom foo leen fekk amuñu jotu la sax nelaw amuñu jotu sax maanaam topp àdduna foo leen fekk rek ñoom sax am na ci ñoo xam ne dañ naan la bu ñu sañoon day mbooleem samay taalibe dañ may fakkastal ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala nag bu ko ab sëriñ nee dama bu ma sañoon nga di ma fakkastal ci yoonu yàlla loolu mooy sas na loolu mooy nee ko kat saa yu ma jógee jógal saa yu ma jógee jógal waaye bul jël léeg sëf ko sëriñ bi boo jëlee lépp sëf ko sëriñ bi nag bu boobaa bis dina ñëw bu ñuy fay sëriñ bi nag bu boobaa yow da ngay yàlla na ci yàlla musal ndaxte nag sunu borom dafa wax ni ku ci nekk dinaa wéet ak yow mbokk yi loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax ndaxte yàlla subhaanahu wa taala àjjana jee ba mu koy defar ku ko jaamoo tax moo tax ñu ne àjjana moom yaatu na yaatu go xamanteni si ni asaman ak suuf yaato non la yaato kon mbokki nañu fexe ba ba dugg fa kon bu fa duggul rek sax càggante la sawara la sax sunu borom ni dana ko fessel ba mu fessel leg leg sax mani sawara est-ce que fess nga mu ni sunu borom bo amé lo may doli nang ma doli kon nak ab julit bu mu xalaat lolo na xamni sunu borom dajalel na ci xiwul yo xamanteni si jaglel nako jox ko bis bu mag bo xamni ne soo ko dundalee rawatina bisub tabaski bi nga julli ci ay rakaa yu bari ñaan ci waaye nag bul bu ko jàppe ci bisub tabaski bi rek bu ñu nekkat weeru tabaski bi teru na la benn fan nee na jógal boo tëddee ba guddi na nga jóg màggal guddi kooku donte que loo am am am soxla boo demee ba dox soxla yépp nee na rikk waaye bul tëdd ci lal mukk te defoo naafila jàngoo alquranul karim tuddoo yàlla sàbbaaloo ko ndaxte nag yooyu day maye leer wala zikrullahi akbar borom bi subhanahu wa taala nee na tudd yàlla mooy li gën a màgg ndaxte dañuy wax ni gémmiñ guy tudd yàlla subhanahu wa taala sunu borom nee na du ma lakk loolu bañ na ba sax ni wax ni képp koo xam ne laa ilaha illa allahu moo mujj ci saw làmmeñ doo dugg mukk saw na ajjana rek ngay dugg kon mbokk yi يالا كونو بغ لا من خيتو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موتاخ ني فيغ ني ديغلي لو باخ دي تيري سافان با رك نين ньо گن تي خيت بي كون مبكي جامانو بي نك دانكا بودي ديغلي لو باخ فا ملني دا ngay déranger فا ملني غاي بغ نون لو باخ مي بغ نون كوي باخال غاي بغ نون كو باخ مي بغ نون كوي باخال صالحين اك مصلحين بكونو صالحين موي ني باخ ني مي ني سلال نك dafa mel ni boo ko dee def ci penc mi rek dafa mel ni yaa ngi déranger te kooku moom moo gën nag kon su ko defee yow foo fekkee lu ñaaw nanga nga fexe ba mu rafet foo fekkee loo xamante ni si nar naa tojum penc fexeel ba mu jub ndaxte nag dañuy wax ni al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi nee na julli dëgg mooy ki nga xam ne ay mbokki jullitam mucc nañ ciw làmmiñam du leen ci wax lu ñaaw mukk du leen ci jëw du leen ci duural du leen ci sosal du leen ci saaga loxoom bi tamit kazalika du leen ci dóor du ci jël seen alal du ci wuruj mukk ci loxoom bi kon mbokk yi nekkati jullit waxa gi nii yomb na waaye nag jëfe ko ci xol bi moo jafe qulu aslamna wa lamma yadxul iman fi qulubikum mën na noo wax ne nag jébbalu nañu de dugg nañ ci biir diine lislaam de dafa mel ni kon gëm gi nag moo des gëm gi nag mooy lan fexe ba yàlla lim ñu indil muy alquraanul karim ñu jëfe ko ndax dañuy wax ni saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñoom bu ñu musaan a jàng benn fukki aaya balaa ñoo jàngaat yeneen fukki aaya danañu jëfe fukki aaya yooyu mbokk bari na kuy jàng alquraanul karim ndekete alquraan moom koy moolu kon dañuy bëgg kon képp kuy jàng alquraanul karim ngay jëfe la alquraan bi wax bari na kuy jàng xasida te fekk na yow la xasida bay wax defoo ko kon dana jaadu kon ñu ciy góor góorlu bu baax di ci taxaw seetlu yàlla subhaanahu wa taala bu ñu tàggalalee suñu mag ñoom ba ñu bindal ay tagg ay xasida ñu ciy jàng ngir lan buñ ci jàngee ngir mën a jege yàlla subhaanahu wa waaye xam yàlla subhaanahu wa tamit ci la bokk mbokk yi fukki fan yi ci tabaski la mel na ni kuy jàng alquraanul karim mel na ni kuy saraxe nga xam ne boo doon saraxe nag ba fukki fan yi ñëw na ko gën a yokk bo doon def def lu bax nang ko gëna yok yokk ta yalla subhanahu wa taala nak amna na bopam bis yo xamanteni si bo ci ben da la koy fulal fuk ndax sunu borom neena na defale ben dama lay fay fuk di la ko fulal di la ko fulal ba mu rombu juróom-ñaar fuk yoon mu ngi melni rek baykat bi nga xamne dafa jël ben pep dugub jiko pep dugub sax lu tollok ñaari gub te jurom ñaari gub mbokk la ca nekk ci pepp kenn xamul nu mu toll ka masali xabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin miatu xabbatin wallahu yudaa'ifu liman yasha kon mbokk yi bul def lu ndaw ba di ko xeeb ndaxte yàlla ëllëg bu nuy fay dañuy jóoral ku ñuy jóoral nag lan lay jox bari na bokkut ak ki nga liggéeyal fii ci àdduna nga xam ne da ngeen a waxaale ci prix bu ngeen waxaale ci prix la ngeen waxaale rek loolu moo koy fay waaye sunu borom nag nee na su ma lay fay dama lay jóoral jóor googu nag mbokk yi day bari lool yàlla ko yàlla ful nga xam ne kon jaamu yàlla gii nag nga xam ne moo nekk sunu kanam ndekete tabaski bi dinañ ci am sunu ndawal am ci tamit euh, dundalu mbokk waaye am ci tamit dundalu njaboot nee na tamit dinañ ci am njéggalu bàkkaar buñ ko dundalee tuub nag delluwaat yàlla subhanahu wa fexe ba mbooleem bàkkaar yi ñu raxasu ci ba set wicc raxasu ci ba set bañ caa delluwaat ndaxte tuub dëgg-dëgg nag mbokk yi mooy mi ngi mel ni rek nga wàcc ba noppi rek dootoo ko lekkaat mu ngi mel ni nga jog ci xal dootoo ca tegaat sa tànk noonu la ko Laxdari waxee mooy nga ni lii ma def kat rëccu naa ko dootuma ko defati mukk ba faw bu ma gisatee ku koy def sax ma woola ci ruq yàdd la ni ab jullit day tuub delluwaat ci yàlla kon ndekitu tuub mbokki yi du wax rek astaghfirullah astaghfirullah moy sunu borom ma ngi lay jéggulu tuub gi nak moy nga bañ ko defati nga xamni kon bàkkaar yooyu nga xamni sunu koy def ci duñu ko tuub dana waral nak dana waral mu xagnu tawfiq mu xamni tawfiq sunu borom tawfiq sunu borom nag moy la nga xalaat ngir sunu borom defal lako rek mu daal am lol moy tawfiq yalla nko yalla defal nakete bàkkaar yu bari nak sunu ko amé te duñ ko raxas moy waral tawfiq gogou dunu ko am nee na bàkkaar suñu ko dul djeglu suñu borom day dox suñu digeunte ak xam yàlla subhanahu wa taala ndaxte bo xamul yàlla subhanahu wa taala do am leer yi nga xamanteni si mo bayiko ci yàlla subhanahu wa taala do am kasfu tamit suñu borom du la maye basira bo xamanteni si di nga meuna gis ay leeram bakkar da fay tilimal xol mbokk suñu borom nak neena ma jaglel len fukki fan yo xamni ne mi ngi nii nekk seen kanam nga xam ne mi ngi ñëw mbokk yi ku ko yàlla man loo su ñëwee boo lijjantee sam xar ak la jëm ci sag njaboot yépp ba noppi jalaatal nag xam ne suñu borom ubbil na la weneen yoon woo xam ni wutukaayu tuyaaba la raxasukaayu bàkkaar la boo xam ni mën nañ ci góorgóorlu ndaxte jamono bi mbokk yi foo tourné rek gis bàkkaar foo tourné gis bàkkaar nga xam ni kon nit ki saa ab jullit dëggantaan su génnee këram bu dellu si waatee sax nee na balaa def lenn na jàpp ba sell ndaxte bëtam bi teg na ci loo xamante ni si bëggul woon mu gis ko àddina bi lu ci bëri mbokk yi ay bàkkaar la moo tax yàlla subhaanahu wa taala bëgg gi ñu bëgg ñun xeetu sayyidina muhammad moo tax mu jagle lu loolu kon yàlla yàlla nañ ko yàlla euh, may ba ñu taxawal ko bu baax a baax moom daal dafa mel ni dafa mel ni dafa wax ni garab la goo xam ne daa meññi lool meññe fi gàtt lool yomb dagg kon mbokk yi du ñu gaaw profito wala sax dafay wax ni bu sëgg yombee dagg for jafe comme nu ko waxee bu for yombee sëgg jafe lii nag kon dafa wax ni kon lu yomba yomba yomba yomb la mën nañ ci profito takk suñu bakkan bu baax a baax xareeg seytaane ba gañe ko ngir yàlla subhaanahu wa taala kat mën ñoo jéggal ndaxte kat mbokk yi dee dafa gaaw lool da ngay waxtaan ak nit léegi dem tuuti ñun la bàyyi ko la fi kon nag boo waajalul sa bopp ci gaaw di profito ci waxtu yi ngir man ko dundal ëlëk di nga dem ci kanam suñu borom do yobale dara kon mbokk yi yalla subhanahu wa taala ab julit da ko war di sante sa su nek ci lan xéewal yi ko defal kon yalla ñu yalla may ñu mëna taxawé guddu gudd suñu borom nak ñu ngi koy ñaan mu defal ñu tawféex ñu defal ñu tawféex defal ñu manam ñu mëna té suñu pas-pas mana a jaamu yàlla subhanahu wa taala يالنا نتيو خد بغاك أرملغ يبانيا ووت تاي جاك سلملغ واي جلي جمع تي صوف دي جامو يالنا نكو باخل مينو لن داتامو إجاه من يشفع يوم الحق عليه تسليما مميت الخلق بالآل والأصحاب فريرمن بخادم المختار فرقرمن تكنغرمم كتخن حمج ماجي moo kuy jullit li feeg julli yi gën maa ji